King Bee. Jenny. Alice! Double bitch! Yo. Call me Double M. Gotta. mën naa lu may def te pourtant defaguma li ma mën lépp nga sa rappeur na mo wooye Double M buñ ko laajee turam mooy badu mën lépp mën nga fi teew ñu tero la jamu, mais bu guddi jotee nga ni je. jeex waxal yeneen gaay buñ kenn comparé dama mën a rap da ngeen mën a lépp waaw di dikte seen i dictateur